asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum mbokk amateur yi. le 22 mais arène national man Boy Niang le de De Gaulle Thiapathioly maa leen di jox rendez-vous. Mama Lamine Garga 2 drapeau Ibrahima moo ko tëgg muy Kajoor production muy combat bu rëy combat espoir. ngi ci woo soppe yi di am di jàmm yëpp. ñu ngi leen jox rendez-vous man Boy Niang dinaa fa ñëw incha allah di fa woo sama fans yi ma am di jàmm yi bu jeexee rek jeex na dagal neew. di leen nag am seen dina dugg si ak culture séeréer dina maye tamit si culture Joola mbokk yi ñuy teewlu à chaque fois ci luttetv.com ñu ngi leen di nuyu bu baax ku ci nekk ci turam ak ci santam tey mercredi 27 avril 2022 ñu ñëwaat ak yéen ci yéen kaay ma ci ànd ak Boucar Ndour Kor Mama maa ngi lay siyaare Omar maa ngi lay fay di la nuyu di la ziar di nuyu mbokk Sénégal yëpp rawatina mbokk internetu Lutte TV ni nga ko waxee rek ah, tey la mercredi 27 avril 2022 ah, tey nag Papa Ndiaye ah, Ndiaye article Papa Ndiaye mi Babacar naan Sir Oudek Siao waaye Papa Ndiaye lañ mën a wax rek élément Lutte TV boo xamante ni te yaakaar naa ne ah ba Lutte TV soo ba tey mu ngi koy souhaité un joyeux anniversaire Pape di ko naan dundal wéral ah sama waay nag dama ko si nal mais daal ñu ngi koy ñaanal daal vraiment mu gudd mu gudd fan lool lool lool ànd ak wér ànd ak xéwal yu bëri. yàlla na ko suñu borom bi sàmm aar ko mu gën a am ndëgër laayu bind ndax tey ndaanaan la leneen li nga xamante ne tamit ñu ngi ci Boucar mooy wóor wàcc xam nga wóor moom daanaka gars yi moom ñu ngi lii di rek mais pour man moom fekk na wuñ ne daal weer bi feeñ na moom waaw yaa ma gën a xam waaw man moom boobu rek tax sama xel dal. ma si droit bu la neex. dafa neex de waaw léegi koor gi bu koor gi. mu continuer bu koor gi passé ba weeru continuer rek. non non koor gi la ñëpp di moo ma neex. non non non yow daal bu weer bi bu weer jeexee daal bu la neex daal continuer ay ngeen li kese si nekk tamit. waaw ma leen daal ñi may nekk lépp ci ànd ak man mun plein droit daal bu ñu ñu wooree nga continuer woor. Hmm. waaw di nga am tiyaaba yu bëri. dina jafe de journal ba suñu làmb la ñu koy daal di ubbee Boucar mu daal di ñëw rek ak ñu ci génnub àdduna Moussa Dioum à l'âge de quarante ans mu ne boxeur bi rangé na ay gants à jamais. 1982 la gane si woon àdduna wuy ju boroomam 2022. waaw mu nekk naqar artiste rek bu tegu si monde làmb waaye bu tegu rek si fame Moussa Dioum gis nga li ma la li ma ko waxee demb rek témoignage yi parce que tey képp ku wax Moussa Dioum rek wala képp ku ko frek rek tey ab yaatu ngay gis si moom ab oyof ab dal ab yëg nit xam nga ab ab ab bëgg nit te yaakaar naa ne loolu rek moom lañ mooy qualité yi nga xamante rek moom la di am rek ba sa génn àdduna bu bu boo génnee rek day marqué nit ñi parce que nit ñi fi nga leen daan toll loolu mooy mooy tax di ñaan yàlla yàlla koo am daan na métti parce que euh, na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko ay bàkkaaram te yéexañu ndax ñuy wéy di ñaan ñi nga xamante ne ñu ñoo jiitu Père Sang wala per sañ Père Sagne mi ngi yëkkati ay kàddoom itamit di ko jëmale ci Moussa Diouf. waaw Père Sagne nag moo nekkoon président rek euh, école de de lutte nga ne écurie parcelle mbooloo rek Père Sagne mi nga xamante ne te yaakaar naa ne mooy wéyjur bu góor. Ah, ci far bu jar moom nag tey journal bi euh, dalal na ko rek ni ko dalee ni mu dalalee ñeneen rek moom nag nee na li gënoon rek remarqué ci moom rek mooy maanaam yaruteem maanaam sa a na ko maslaa personne nee na loolu bokk na ci li nga xamante ni gën na ko marqué ci Moussa Dioum ginnaaw personne Khadim Gadiaga itamit ay kàddoom ndax moom mooy président wu Rock Énergie

xol day tooy ndeysaan mu mel ne tamit Batika waaye am la woon démb rek maa ngi koy wax si groupe bi parce que am na ay audio yoo xamante ni tey mu ngi ma naan Boucar temps yi dama apollo te xam naa damay bañ nga jël ma xam nga Batika gis ma di ma jàpp kaan affaire yu noonu yaakaar naa ne am na solo Balla Beye numéro 2 di Baboy itamit mi ngi yëkkati ay kàddoom di ko jëmale ci génnub àdduna Moussa Dioum waaw nee na maanaam génn àdduna moom nekk na loo xamante ni moom lu ko lu ko touché la lool lool lool lool lu ko yóbbee naqar ak tiis la parce que nee na daal nit la daal koo xamante ni tey vraiment euh, euh, euh, si ñoom man na mën nañ daal si moom la débuté parce que ku xam ku xam Moussa Dioum nee na daal Pikine la débuté si ñoom nee na daal nekk na koo xamante ni daal amoon nañu ay relation ku xam Moussa Dioum xamoon ko ci ne Moussa Dioum n'est plus Franc parcelle mbooloo avenir am maanaam tey am na ñu fa nekk rek tey seen course mu nga faw di maamles di ko bëgg làmb ku dund làmb au quotidien nañ ñu nga fa ondinga mu nga fa gis nga ko def na baptême de feu kon yaakaar naa ne rek bu jar tamit gis nga récemment tamit am na combat am victoire yaakaar naa ne faran bu demee tamit ay champion nga fa yoo xamante tey ñoom ñooy gëm seen bopp relever le défi nekk ay champion parce que seen mbooloo moom moo forcé Franc ba Franc nekk Franc kon war na mën a forcé ñeneen champion. yaakaar naa ne am na solo Boucar Ndour leneen li nga xamante ne nii tamit gis nañu ko ci journal bu l'Observateur wala suñu suñu làmb du moins mu daal di ñëw ak ñun ci Pape Diop Boston. mu yëkkati ay kàddoom di ko jëmale ci combat bi war a dem ci diggante Balla Gaye numéro 2 ak Boy ndax combat la boo xamante ne ni jàpp na ni bu ñuy xaar la.

Eumeu Sène ginnaaw nag jaar-jaar bi nga xamante ne def na ko ci làmb digganteem ak Lac de Guiers numéro 2 digganteem ak Gris doo Balla Gaye numéro 2 ak Bombardier mu nekk ay combat yoo xamante ne ni bokk na ci bokk mi yëpp ràññee Eumeu bokk na si li tax combat li tax réew mi yëpp ràññee ko combat mag Gris Bordeaux gis nga xeex bi si amoon ko ak combat bi ni mu yàggee blessure bi mu si amoon yëpp mm. tenir ko yaakaaraan loolu tamit làmb da koy bàyyi xel ba jamono jii tey Lac de Guiers 2 tey Eumeu moo ko njëkk jox defetam en 2012 yaakaar naa ne moom ku ko daan aller retour champion nga ndaanaan nga Bombardier ku ñu yaa ne ñoom ñoo moom moo tax daal Eumeu Sène tey turam yegg fi mu yegg ci làmb yaakaar naa ne doon di wax ndaanaan Eumeu Sène sax bu yàggee nga doon ndaanaan drapeau du chef de l'état incha allahu rabbi kenn ki nga xamante ne ni bu ko ràññee nañu ko ci moo la représenté moom itamit yenn ci ay raison fii ci Sénégal muy Doudou Sané di xale boo xamante ne nii nag gis nañu exploit yi nga xamante ne mi ngi koy def ci làmb ji waaw ren moom su ma juumul def moo ëppalegum li mu jël si ay trophée amagum na ñaari oto macha allah moom Doudou Sané di participer nga xamante ni tey moo di drapeau du chef de l'état ni ko Abdoulaye Ndiaye war a defee Pape Maroun ak ki nga xamante ni rek moo di Georges Poit moo tax rek journal bi ñëwaat na si jàpp na daal ñii moom mooy ñoo nekk daal euh, VIP yi nga xamante ni rek ñoom ñoo nar a def seen entrée si drapeau chef de l'état bi fële sa ki nga xamante ne ni boo Boucar toog na temps bu yàgg bëriwul mu war a bëreeg tarkindaa bi muy Garga 2 war a jàkkaarloo ak Mama Lamine moo tax journal bi di laajte rek ndax moom Garga 2 du perte ay repère am le 22 ndax du perte ay repère am le 22 mai yoonu yàgg wala le 22 sax yàggatul mais Garga 2 Omar bi ma koy xam am na ay dara am ba garga tey daraan dugg Saalum bu si mel ne ay passé di fa dem daan fa mbapat loolu bokk gënoon na gënoon na bokk ci li ko mayoon repère parce que garga bi muy daan Valdo kenn foogutoon ne garga mën na daan Valdo maanaam yooyu bokkoon ci li ko mayoon repère waaye nag peut être gëj a bi cinq bi mu toog bëriwul moom la journal bi di samplage ba xam ndax dina ko porter préjudice ak lu mën a xew nag mu ngi entraîné mu ngi contact mën nañ maanaam li li li li dalay dalay dalay tàggat kon yaakaar naa ne loolu peut être bokk na daal si li tax mu yëg si fi mu yëg si fii tey waaye daal ak lu mën a xew moom combat la rek boo xamante moom ki muy bëreel moom Maama Lamine ku ko xam-xam ne mbër la euh, champion la jàmbaar la ku ko xam ne mbër la champion la jàmbaar la Ousmane Diouf de la RDV mi ngi yëkkati ay kàddoom di ko jëmale ci combat bi war a dox ci diggante Lac Rose ak Amanekh nee na nag lagros am na avantage mais avantage bu léger la muy xeex avantage bu légère muy xeex bi ak lu mën a xew rek Lac Rose ama a neex la Lac Rose yaakaar naa ko wax a mën a bëree Père Ousmane nag tey nga xamante ni tey xam-xamam màcc na ci wàllu làmb yàgg na ci ñu koy nuyu de passage rek moom ak lu mën a ah, moom moo xaw a avantagé côté xeex bi kon nag peut-être na privilégié xeex bi pour bu si bëggee génn parce que ama neex tamit ku ne xam na style de bëreem ak ni tamit ah, ñu ngi xaaral xaarandi rek combat bu neex incha allahu rabbi incha allahu rabbi journal bu record daal di ñëw ak ñun ci dund boo xamante ne ni dund Max Mbargane la waaye nag loo xamante ne ni mosuñu koo xam ci Max Mbargane loolu la waa journal bu record daal di jékki mu daal di ci livré waxtaan ci ak ñoom mu daal di ciy livré daal di ci waxtaan ak ñoom le papa des Tarkinda père Max Mbergane ñu koy nuyu rek di ko ziar de passage mu mel nag tey turu Max Mbergane bi moom ah, si nag euh, euh, ko ko mun ki nga fële rek ah, a def waaye père Max nag ñëw na si li nga xamante ni rek mooy maanaam tey il a frôlé la mort mooy maanaam tey xaw nañ ko rey fële si diwaanu Mbour bi nga xamante rek bëri fa ah, daan fa ki nga xamante xamante ni rek moo di Mori Touré fekk njëkkoon na ko daan waaye bi mu ko daanee te Mbour nee na daal ay supporteru kooku ñoo daw si ak ay béjjén na yooyu di ko jam ah ba jam nañ ko sax béjjén boo xamante ni tey hôpital lañ di dindee eh, béjjén bi waaye nag nee na Batling bi nga xamante ni su ma juumul moo gaañu récemment rek nekkoon papaay fils de Batling Siki ah, nee moo ko sauvé bu nekkutoon moom moom peut-être beneen Maxime Mergan la ñuy wax waaye daal ñëwaat na tamit si ñi nga xamante ni rek mooy Amboura Sarr eh, Boy bi nga xamante ni tey ñëpp daan na leen mbapat kon nag Père Max champion la woon ndaanaan la woon boo xamante ni tey mën nañ ne gaañu gaañu boobu ko yàqal bëri moom sax ku xool yenn waxinam ak yenn jëfinam da ngay xam ne champion la woon bi mu ciy toll même bu dee même bu dee ni yàggul sax ci ci ci ci biir géew gi Moussa Dioum itamit génn àddunam journal bi daal dina siy ñëw ndaxte nekk na koo xamante ne nii à chaque fois nit ñi dañuy xëy di ko fàttaliku rek dañuy xëy di ko fàttaliku moo tax nag si njëkk rek mooy Tapha moom nee bawol bawol yi moom ñu ngi perdre nañ koo xamante daal maanaam ambassadeur la woon parce que képp ku nekkoon mbër rek dëkk bawol vraiment amoon nak yow ay boo daan bëri da lay daan taxaw ki nga xamante tamit rek Gaar Ndiaye moom tamit yaakaar naa ne si ay jarbaatam la bokk nee na daal ab métti daal la doon jàmbat si tànkam mooy xam naa rek mooy gaañu gaañu bi euh, euh, maam les wax ne moom la amee góom moom des fois pour mu wér day métti waa daal yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana allahumma amin yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana ñëpp ñu jiitu itamit yàlla na suñu borom bi yërëm te suñu borom bi ñu fi nag ñun ñu leen di ñaanal yaakaar naa ne loolu a waaw leeral yi loolu moo si gënoon a fës rek Omar di la nuyu rek di la ziar di nuyu waa Gambie rek ah, ku si mel ne DJ Mo waa Vice FM ñoo ngi di nuyu di leen ziar di nuyu père Ndongo Cissé ah suñu père di nuyu tamit père Idi Diona papa Lamine di nuyu tamit rek DJ Babacar Sarr ah borom Birkelane FM di nuyu waa Saloum yëpp di ñaan jaamu si réew mi Omar. asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum mbokk amateur yi le 22 mai. arène nationale. man Boy Niang le fils de De Gaulle drapeau Abdou Karim Sall. ci combat Kajoor production muy Ibrahima moo ko tëgg muy Kajoor production muy combat bu rëy combat espoir. maa ngi ci woo soppe di ci woo am di jàmm yëpp. ñu ngi leen jox rendez-vous foofu man boo ñaar dinaa fa ñëw incha allah di fa woo sama fans yi ak sama am di jàmm yi bu jeexee rek jeex na dagal neex. di leen nag am seen dina dugg si ak culture séeréer dina maye tamit aussi culture joolaa.